gën a dooleel li nga xam ni moo di partenariat bu Sénégal ak bu Royaume-Uni monsieur John Humphrey nekk au commissaire au commerce bu Afrique moo dal di amaloon benn visite foofee ca port autonome bu Dakar visite boobu nag dara waralu ko lu dul ñëw en tant que partenaire financier bu DP World ngir xool li nga xam ni moo di avancement yu installation yu DP World waaye tamit càmbat li nga xam ni moo di investissement yu britannique dal di amal fii ci Sénégal te port autonome bu dal di ciy bokk jàppee ci boobee forum Invest in Sénégal nekk benn projet boo xam ni day dal di xëcc ay capitaux waaye tamit dooleel li nga xam ni moo di croissance économique bu Sénégal ci loolee boobee projet dina tax ba ñu gën a dooleel li nga xam ni moo di partenariat public privé waaye tamit defal promotion bu petite ak moyenne entreprise yi ba tey ci boobee projet dina tax ba nu gën a xam li nga xam ni moo di environnement économique bu Sénégal waaye tamit xàmmee yi xam ñoo nekk ay marqueur ngir convergence daal di am forum Invest in Sénégal dina tax itam ñu dal di promouvoir benn environnement au sein des affaires waaye tamit forum Invest in Sénégal bëgg Sénégal nekk benn lieu boo xam ni fan nañuy rencontrer ngir rek dal di waxtaanee bépp investissement boo xam ni war nañ ko amal fii ci af